Sering siina xis lañu bambay kamil. Sering siina xis lañu bambay kamil. Sering siina xis lañu bambay kamil. Beriup, yépp soxlanu bambay kabal manzak zakri zalika jarabi yujarabi jarabil يجر بالباب تخرج maa ngi wax jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Tuubaa di ñaan saa su ma xëyee gën koo bëgg wax nit ñi ñu wax jërëjëf sëriñ Tuubaa ndax man ndaw laa nekk ci ñii maa ngi wax jërëjëf sëriñ Tuubaa ku xëy rek na nga gën a bëgg sëriñ Tuubaa te fonk ko yaakaar ko gëm ko wóolu ko ci barke yi Seex Amadu Bamba Xaadimu Rasuul